bismillahi irrahmani irrahim mbokk jullit asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jamiat ahlul quran al karim bi Fass Touré jotaayub xam-xam boo xam ne dina leen ko jox jeudi bu nekk inchaa allah ngeen di ci ànd ak seen mbokk Abou Taha Mouhamed Alioune Gueye jotaay boobu nag ñu ngi ko tuddee warattilil qur'ana tartila tur wu nekk day wuy borom lañ ci jublu mooy ànd jàngat ak nafar yenn téere yoo xamante ne day jàngale ilmu tajwid nga xam ne dafa tënk règle yi nga xam ne day jàngale naka la ñuy jàng alquran ju jub ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat moo ko jote woon ci boromam subhanahu wa taala joxe ko saxaaba yi noonu ñu koy donnante ba mu agsi ci ñun njàngindum alquran mu jub du lu nit ki def am xelam waaye dafa ànd ak alquran ñëwaale borom xam-xam yi yaxal ko jotaay boobu di warattil alquran tartila di ngeen ci ànd ak incha allah seen bokk Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye jeudi bu nekk ngeen koy mën a suivre ci site internet u jamiat ahlul quran bi Fass Touré di ahlul quran point com wala ngeen mën koo suivre ci ay compte youtube lu mel ni ahlul quran ak la maison du coran loolu lépp incha allah xaar leen ko ci jeudi bu nekk ci studio yi ma wax ndax ñu mën ànd jàng alquran ju dëppoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon Abdullah bin Mas'ud ba joxoñoon ko ni ko bëgg jàng alquran ju melni ni jiñ ma jox jàngal njàngin Abdullah mas'ud assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh